voilà day dañ def ay fausse rumeur xamuñ fu mu jógee mais dañ ma bañ ma ko waxee sax dañ ma waxal du amul ma ne non nit ñi bu ñu jógee bu ñu tas seen yaakaar yàlla moo tax ñuy def nañ def si kàttanu yàlla yàlla jox ñu kàttan mën-mën ñu def li ñu war a def. li li lépp suuf ma xaw metti tuuti mooy dañ leen nax nax laa ko mën tuddee parce que buñ leen waxee nii ubbi nañu lii te alors ko ñun yëguñu ko. de tout le temps dañuy recevoir ay demandes de tout le temps dañ si kattan suñu borom dañ koy gérer comme il faut kenn duñu dégg mais bi demee na nu nga xam il faut ñu wax ni leen ki ko doon def xamul lu mu si jublu mais ñun duñu rejeter dara yii pour tabaski la rek la li ci gën a doy waar nag dañ ci dugal seen ay pièces lii dañuy war euh, rapidement dañ koy delloo seen ay borom parce que c'est important waruñu ko amee ñun dañ leen wax ni len dañuy duggal photocopie euh, Euh, euh, pièce d'identité à demande j'ai jamais dit ça Nous du ñu fonctionner non. monsieur musuñu fonctionner non. Nous ñi dañuy ñëw naturellement déposer cette affaire naturellement nous koy ci carton yalla ak ci sutura ñu def ko mais li mom mi ngi ni euh, au niveau de la fondation nenañ ma parce que j'ai été là-bas pour xol man moi-même qu'est-ce que ce qui se passe nenañ ma ñi def santé fi lañ buntu bee la jaar donc yi jot normalement euh, ay tabaski la war a santé bi ça n'a rien à voir parce que comme li may wax toujours damay priorité bi mooy santé bi ñi am ñi def demande pour la santé lii ay demande la pour la tabaski en tout cas maa ngi wax ñëpp ni ñoo ngi jéggul bu bu tardé du su ñun affluence bi moo bëri apparemment ba léegi ñoo continuer di dem foofu di déposer duñ ko rejeter dinañ jëli pick-up jëli daf ko indi ay volontaire ñu ngi fii di si jàpp depuis pour ñu mën jukki mais na nit fu dans les régions ñuy ndax pour def ko pour dire que ni benn ay nit yu mal voilà lo rek la bëggoon wax voilà di jégalu ñëpp et puis daf lay metti dal parce que dem may na waa ñii duñ leen jox ñu lekk parce que depuis ce matin ñi ngi taxaw fi mais boko défé aussi da ngay melna da nga ki wax wax ji da nga and ak mom ci li def parce que nit ñi dañuy joggé fu nekk. parce que kenn dafa rapport li dañuy dor mu dal waaw <laughs> pas longtemps amna ko xamni dañ ko wax ni que première dame daf lay dimbalé mais pour mu dimbalé la il faut nga joxé xaliss man duma defé non yow boy dimbalé di nga laaj xaalis mais j'ai vu que chaque fois dañ ci nax nit chaque fois dañ len di laaj man duma ma laaj du ñaan kenn duma ma laaj ana boy dimbalé nit kay xanaa doo daat doo jël limu am kon nit ñi war nañu bayyi xel ci li ñu len di wax waaw nit ñi war nañ ci bayyi xel trop toujours ñu nax len ci Facebook man nee naa leen Facebook aw Twitter aw ma yooyu yëpp ko toppatoo lool au niveau de la fondation ku fa indi sa demande surtout fe maladie wala yooyu ñu taxaw si mais nit ñi dañuy wax ci Facebook waxuma ci Facebook waxuma si loolu facebook wax benn yoon nee naa leen nañu nit ñi di éviter ñu leen di trafic d'influence demandé kenn xam fondation bi bëgguma sax intermédiaire ku am bindal ci fondation fondation bu dama malade rek parce que je me suis rendu compte ñoo y a beaucoup de malades xam nga dañuy def ay évacuation sanitaire parce que dañuy wax ni ñun suñu borom lañuy dañuy liggéeyal suñu borom loolu la ñuy def defuñu leneen wutuñu leneen nekkuñ ci leneen aussi mais toujours day am ay problème ba bu yàggul rek ku nga xam ne dañu yóbbu gendarmerie parce que nit moo ñëw ni ko ci Facebook yi joxel ku leen wax laajuma dara nañu demandé bu ñu mënee defar ñu def te ñaa ñamuñu yàlla yàlla mu suturaal ñu bu nga xam ne duñu tas yaakaaru kenn voilà si loolu la ñuy dox mais lii moom mi ngi nii ku sa lettre tardé daal na nga xam ne Marème Faye Sall mi ngi def lu mën ay nit a ngi ñu añuñu ñu nelawuñu pour jukki ko mu gaaw voilà te ñuy éviter